jërëjëf euh, madame Mané ñi ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di rafetlu seen teewaay fii di leen masawu coono tamit ci déplacement bu métti bi ndax fi xaw na sori xaw na enclavé mais li am solo mooy liggéey la te liggéey bi jaamu yàlla la yàlla na leen ko yàlla bindal tiyaaba di jaajëfal internet yi nga xam ne tamit ñi ngi topp émission bi ñaanal leen déglu gi yëpp yàlla na ko yàlla def yiw te ñu bokk ko àddina ak àllaaxira mhm. jërëjëf oustaz yal na yàlla nangu ak oustaz imam Babacar Sylla mm-hmm. ànd sàmm jikko yi mm-hmm. dinañ waxtaane structure boobu di ànd sàmm jikko yi mm-hmm. revenir ci li nga xam ne mooy objectif yi ak aussi euh, jamono gi nga xam ne moom lañ ko sampee ak aussi revenir ci actualité actualité bi nag li ko gën a dominer bokk na ci procès Adji Sarr ak Sonko ak kàddu yu joto jóg tribunal ba procès passé ñaari parti ku ci nekk sa kaddu jib na ak vidéo nga wax ak déclaration tey mhm. euh, ñu bëgg cee waxtaanee taxawaayu ñi nga xam ne mooy ànd sàmm jikko yi mais balaa ñoo dugg ci yooyu yëpp mhm. ñu bàyyi rek nga rappeler les objectifs yi nga xam ne moom la ànd sàmm jikko yi daal di euh, def ci ndoddam ngir population sénégalaise bi jërëjëf euh, madame Mané li nga def nii li am solo la ndax ànd sàmm jikko yi kuréel la goo xam ne léegi nekkatul kuréel national sax mais kuréel gi léegi international la ndax ni mu amee fii ay coordination ci réew mi noonu la amee ci diaspora bi cest à bitim réew fépp foo ca dem fu nekk ànd sàmm jikko ya ma nga fa di doxal lu mel ni li ñuy doxal fii ngir yëg ne ëllëgu réew mi dafa nekk ci jafe-jafe te ñu bare bàyyi wuñ ko xel parce que tey rek la ñuy xool te jàpp nañ ne dafa bokk liy jagal am réew mooy jikko yi jag li yàq am réew jikko yu yàqu kon objectif ànd sàmm jikko yi lan la woon mooy jikko yi fi maam bàyyi woon di ay jikko yu tedd nga xam ne ku yàlla di teral ku ne ci jikko yooyu la la terale ku nam ma torox ku nekk wàccu jikko yooyu la yooyu la ànd sàmm jikko yi ne nan ko préserver ba vague bi jógee Occident di ñëw bu mu ñëw rek bëfuyee suñu valeurs yi nu amoon sa parce que xam nga Occident buy ñëw day ñëw ak vague indi alal indi culture am yu bare mu indi ko bu la fekkee waajaloo sa bopp bu ñëwee day mabbu sa culture mabbu sa ngëm-ngëm mabbu say jikko installé culture am ngëm-ngëmam te te base bi du dara lu dul alal ji mu yor kese day jeex te ñu gëm ne ñun nag jikko dafa basé wu ci yàlla te yàlla du jeex kon looloo tax ànd sàmm jikko yi euh, taxaw euh, taxawaay boobu sunu coordinateur nag mi ngi tudd kër Mbuub xam nañu ko moom mooy coordinateur bi fépp ci Sénégal ak ci bitim réew vice coordinateur mooy Oustaz Makhtar Sahar taxawaay bi yépp gis nañ ne jikko yaa ngi yàqu te dara yàqu ko lu dul alal ak bëgg àddina ñun ñu ne fiñ ñu bëgg féete réew mi mooy ñu taxaw ba vague bi di ñëw de mënuñ ko teree dugg de waaye danañ fexe bu bu ñëwee it lim nu fekkee muy jikko moom dana ko fi bàyyi. ñu taxaw fas yéene aar yooyu xëy na nag affaire góor jigéen da cee gën a fës waaye du loolu kese moo ñu tax a jóg jikko moo ñu tax a jóg. waaye ci biir jikko yi daf ci am benn élément boo xam ne bu ñëwee day mab mbooleem jikko yi ñuy xeex yëpp mooy ak nguur jigéen ku mu xas ne ci yow mboolem jikko yu tedd yi ni wax yëpp deex na ci yow doo wax di kersa doo wax jom. doo wax ngor doo wax doylu doo wax ngëm-ngëm ko booy bàkkoo bu góor jigéen nekkee ci nit ki jikko jooju ñàkk na ko moo tax ñu ne bii nag mooy combat principal bi mais combat yu bare bare ñi ngi ci nekk di xeex ci wàllu jikko dafa tolloog na àddina moo toll foo xam ne tubaab bi moo gis benn élément boo xam ne bu ko amee ba installé ko ci nit yàq ne léppam mooy ak ngóor jigéen ñoom ñu internationaliser combat wu góor jigéen di ko dugal ci institution yi di leen utal ay loi ak ay règle di leen protéger parce que xam na ne mooy élément bu nga xam ne bu ko xasee am ci biir nit lépp lu mu bëgg ci doomu aadama boobu am na ko ñun nag looloo tax ñu ne bii moom duñ ko bàyyi mu jàll foog ñu def ko faas voilà ku yàlla loolu moo tax ànd sàmm jikko yi xeexam affaire ngóor jigéen gën cee fës euh, ndax lim am ñu ne ci ginnaaw góor jigéen di ko financé loolu rek moo ko waral. d'accord fu mu déggee sa taal bu xeex ñi nga xam ne ñooy góor jigéen góor jigéen mhm. seen combat da ko négligé wala da jàpp ne doonul loo xam ne am na benn pouvoir bi wala it doonul am na benn place ci société bi waaw góor jigéen dañu gis mi ngi avancé ci société bi bu baax mi ngi teg ay jéego yàgg na fi nag ñun duñu wax ne tubaab bi moo ko fi indi ngóor jigéen dafa mas a am fépp alxuraan daf ñu jàngal ne existé woon na jamono yonti yàlla luut yàgg na ci àddina bi kon Sénégal fii góor jigéen yàgg na fee am mais lan mooy problème bi dëggantaan ngóor jigéen koñ bu mu mas a nekk du fa tekki dara mosoo dugg ci ab koñ ñu ne la kii góor jigéen la ñuy waxtaane luy jagal pénc mi woo ko ci bu ñuy waxtaanee imam duñ ko def imam duñ ko fal délégué de quartier duñ ko fal maire député duñ ko ko fal duñ ko fal yàlla tere président bu buñ xasee xam ne góor jigéen nga yow daanaka lépp lu ñuy nawee doomu aadama doo ci mën a bokk loolu ko wax ak ku waxul moo fi ne foo leen daan gis ñu nekk ci ay tànn beer di fecc ka wicc xoo ko defi affaire mais terewul nit ñi dañoo amoon ay limite ci ñoom loolu nag tubaab bi moo dem ba yàgg mu gis ne mii ñii dañ leen stigmatiser lu tax góor jigéen du nekk imam lu tax góor jigéen du nekk délégué de quartier lu tax góor jigéen du nekk député lu tax góor jigéen du nekk maire daan ne non di defar ay loi yooyu may sañ-sañ góor jigéen mu am sañ-sañu nekk maire nekk député nekk président nekk chef de quartier nekk imam mais c'est grave loolu la ànd sàmm jikko yi di xeex loolu mooy problème àddina tey France da ngay dem ñu lay présenté maire bi naan la maire ville bi góor jigéen la kenn du ko nëbb nga gis ab président de la république bu taxaw am far bu góor te góor la fan lañ ko jaaree ci loi may ko sañ-sañu mu di ko def vague boobu nag waaxu ba dugg ci réew mi Barack Obama bi mu fiy ñëw yéen a ngi koy fàttali publiquement publiquement la sàkku ci président de la république pour ñu légaliser fi góor jigéen cest à kon ku doon laam-laamee ne ñi ngi ci wala nekkuñu ci loolu leer na lan la ko président wax non ñun paree guñu baat boobu nag am na ñum daloon seen xel mais ñun bu ñu ko déggee dañoo tiit parce que ñun ay wolof lañ soxna si pare guñu yow boo ñëwul ci kër gi ne da ngay ñëw di yendu si ah salaamaaleykum ah man kat dama bëgg a dem de añ bi paree na pour ma añ ñu ne la ah pare ñu de yow pare guñu boobu loo ciy dégg mooy ñi ngi togg añ su ma ne la woon añ amu fi doo toog da ngay jóg dem mais bu ma ne la pare guñu añ yow xam nga ne ñi ngi togg añ dañoo pareegul. moo tax ñi nga xam ne amuñu dégg ñoom bi ñu déggee président ne non ñun pareeguñu pour loolu dañ ne alhamdulilah tàccu bravo ñun ñu noo waxuñu bravo de parce que pareeguñu moom mooy togg gaa ngi dox kañ la togg gi di pare. moo tax ñun foofu ñu duut fa baaraam mu dem quelque temps premier ministre du Canada bi ñëw fi xaw ma Angleterre bi noo Canada. Canada ñëw sakkuwaat loolu ci président encore. te ñoom dañoo osé wax ne sax bépp nguur bu taxaw pour jàppale ñooñu ñoom dañ lay jàppale mais ñu ne mais attention lii dalul xel ñu dawal quelques années ñu gis ñun suñu carte d'identité nationale yi ñu yoroon ñu rocc suñu turu yaay ak suñu turu baay man su ma tuddee Babacar Sylla doomu diw ak diw dañuy rocc ba doomu diw ak diw ñu def ci Babacar Sylla kese du am ndey du am baay ba nii nii suñ dentité yi loolu moo ci nekk mais loolu nit ñi jàppee wuñ ko dara mais ñun dañ cee dut baaraam ne attention mais lu tax lii c'est parce que am na ko ñuy préparé parce que góor jigéen du am doom mais dafay adopté ay xale ñaari góor jigéen ñaari góor bu nuy sëy dem ca auberge fu ñu dem ci orphelinat yi fu ñu mën a jëlee doom dañuy dem ñu adopté doom jënd ko wala ñu jël mën yu ëmbal ko ay weer mu am doom ñu jënd ko doom jooju amul ndey amul baay kooku bu ëllëgee buy am euh, dentité mënoo ko defal turu yaay parce que amul yaay mënoo ko defal turu baay ndax ñaari góor a ko séq te kon bu ëllëgee bu amee ñu am ndey ak baay am ku ne ci dëkk bi amul ndey ak baay loolu dañ koy stigmatiser léegi nañ dindi ndeyu baay yu ñëpp nga xam ne bu ëllëgee góor jigéen bu adopté doom mu ne ci pénc mi dentité am ak suñu identité kenn du ko xàmmee ñu ne mais attention. identification la ñu wax soxna si identification pour nga xam nit ki lan moo gën a wér ñu xam ni kii mooy diw doomu diw ak diw juddoo barab sangam ane sangam sexe nangam la yore sexe góor la wala sexe jigéen ñu dindi sexe nga xam ne boo daan am sa identité sa permis dañ naan sexe féminin wala masculin maanaam kii góor la kii jigéen la ñu dindi sexe ba def ci genre maanaam yow. yaay xool rek loo bëgg a doon mën nga nekk góor mën nga nekk jigéen mën nga nekk góor jigéen mën nga nekk loo bëgg a nekk. fii ñu gis ne lii kon processus la. cest à ñu ngi préparer terrain bi loolu doyul de ñu créer benn ministère ministère de la femme et de la famille et du genre attention luy genre genre mooy koo xam ne du góor du jigéen ministère boobu lan lay def Sénégal. boo nee de la femme et de la famille enfant moo fa nekkoon ñu dindi enfant def fa genre waaw ñu ne yow boo nee ministère bi ëmb jigéen ak famille doy na mais famille xale yi dugg nañ góor dugg na jigéen dugg na pourquoi ñu indiwaat la genre parce que am na koo xam ne moom bëggul nekk góor mënul nekk jigéen mu ne man góor jigéen la kooku genre la loolu ñu def ko ay direction ci ministère yu bare utal leen ay bureau fépp mais ñu ne mais attention ñun processus bi mi ngi dox lii mooy togg gi gis nga njàng mi am na benn année amoon na fi coow lu bare ba fi ñoom dàmbooj di coow ñu commencé cycle boo xam ne dañuy expliquer xale bon affaire ngóor jigéen du lu garaaw dañ koy comprendre yooyu loolu mooy togg gi loolu nag ànd sàmm ji koy gis ne comme objectif bi lii la parce que lii boo bàyyee mu jàll mooy dem ba may sañ-sañ góor jigéen bi nekk fi maire ëllëg di dogal ci suñu kaw nekk fi imaam ëllëg di dogal sunu kaw nekk fi président ëllëg di dogal suñu kaw loolu mooy principe bu combat bi nga xam ne tey gis nga ko ñu porté benn loi parce que gis nañ ne ay loi la ñuy xeexee ba samp ko mais ñu tamit ñu jël ay loi comme ñoom loolu la d'accord euh, ci sañ-sañ boobu sax tey euh, <coughs> gis nañ koo xam ne euh, duñ jugé duñu aussi défendre mais fii Sénégal dañ ko jàppee woon ki nga xam ne mooy borom ñaari tour yi muy góor jigéen mais ci internet ci live bu mu dugg nee na it moom bu nekkee góor jigéen Sénégal kenn mësu koo jàpp tey it ci ay waxam mu ngi préparé dem Màkka tey kooku bu ñëwee dem Màkka est-ce que nekkul dafa bëgg a changer wala it tey est koo xam ne dafa nekkoon ci situation bi ngeen xeex mu changé bu ñëwee est-ce que ànd sàmm jikko yi dina ko accepter. bien sûr ak a neexoon ñu gis chefu góor jigéen ña ka leen jiite ñëw ne daa bëgg a dajeek ñun pour ñu xam ne mi ngi def yan pexe pour teggee ko ca yoon wa soxna si loolu rek lañu bëgg ñun amuñu rànkañe pour wax ne góor jigéen ah, na dee non na tuub lañ bëgg na bàyyi li muy def komba bi mooy. ñi leen di may doole ñooñu lañ bëgg a jàpp seen loxo xanaa xamoo góor jigéen bi ci boppam moom xam na ne lim nekk baaxul wallahi alazim man gis naa góor jigéen man julli naa génn fii góor jigéen téye sama loxo fii ci buntu jumaa ji ma xutba ci góor jigéen ma génn ci jumaa ji mu sama loxo di jooy dama imam billahi lii mënuma la ko wax man wala la mu wax ma ne ma man lii nga doon xutba lii ci laa nekk góor jigéen la bi gën a garaaw bu ñuy tëddee sax la moom ma ne ko lu la ci dugal mu commencé expliquer ma xam ne nii moom xëy na sax amu ci xaalis boobu mais xëy na virus bi dugg na ko rek ay mag di ko fawee ba dugal ko ci si boo xam ne kenn xamul nu mel mais da nga yëg ne kii li mu nekk neexul baaxul te yëg na ne baaxul te mi ngi fiy jóge nee ne mi ngi dem armée la ñaanali yaayam mais maa ngi gis mi ngi triste parce que daf ci fekk waxtaan wi xawul neex deret nag ndax waxtaan waa xawoon a ñàng si mais kooku nga xam ne dem na ba xam ne lii du lu baax su gisee ku koy dooleel naan ko baax na di ko may luwaa di ko protéger mais da ci gën a toog loolu moo tax ñun suñ combat objectif dañu viser ñi leen di may doole ne leen kenn du ko légaliser benn parce que ñu ñu bëri ci ñoom ñi ngi bëgg a walbatikuwaat su ngeen leen defaralee te ay loi da ngeen leen di gën a delloo ca mbon ga xam nga ne góor jigéen bu demee ba xelam di xalaat naan maa ngi dem Màkka bëgg na ñëw Sénégal bëgg na def nii cest à dem na ba yëg li muy def li baaxul mais comportement wu góor jigéen bi dañ koy atte góor jigéen man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum am na ñoo xam ne ku niru nirulu ak ñoom ci ñoom nga bokk góor buy xeesal di takk ay jaaro di def ay manière jigéen <laughs> mais ci modd góor jigéen ñi nga nekk yonent nee na ku niru nirulu aw nit ci ñoom nga bokk parce que cofeel nga am ci ñoom ba di niru nirulu ci ñoom ànd ak loolu yépp bu ñu sañoon wallahi maa ngi koy ñaanal yàlla moo képp ku mel ni moom yal na ñu dund ba génn ci lool ñu nekk parce que du lu baax te ñoom ñoo ko xam maa ngi koy xamal ne ko ñi leen ci bëgg a dooleel wallahi dañ leen a bëgg a lor parce que duñ leen wéttale seen bàmmeel nañ ko lànk àddina yàggul képp ku leen ciy yi ci alal ci ay loi ci sañ nga ko mën nga ko bis boo génnee àddina du taxaw sa dëj ñun amuñu soxlu góor jigéen ne ci góor jigéen ba dee déedéet li ñuy bañ mooy mu gën a yaatu di influencer ay ndaw dëgg la live boobu ma ko sax mais su dee kàddu yu mel noonu mi ngi des ci xelam lim lay firndeel muy kii xam ne ne lii baaxul parce que mi ngi weddi yéen ni ngeen may tuumaal mënu leen ko prouver mooy kon moom liñ koy tuumaal d'accord ko bu ko d'accordoon du ko daw danaan man nangam laa mais bu fëggee danam ne nangam laa da yëg ne kon kii bëggu cee jóge mais suy moytu naan lii ñu may tuumaal kenn mënu ko prouver sa parce que liñ koy tuumaal li neexu ko même bu dee mi ngi ci. bon loolu nag ñu bàyyi ci xel. d'accord ñu jàll ci question d'actualité. gis nga procès Adji Sarr Ousmane Sonko suivre nga ko comme sénégalais yëpp tey lan moo ci sa réaction ci procès boobu. waaw gis naa ko sama réaction ci procès bi daal mooy am ci rëccu ak gàcce. ndax Sénégal ëpp na lii soxna si. deux mille vingt et un mille vingt deux ba deux mille vingt ñaata milliards la réew mi ñàkk ci procès bi ñaata deret ñoo ci cuuru ñaata bakkan ñoo ci faatu freiné économie réew mi ci fan mu yem ci débat benn salon de massage te dégg ma te déewuma sëñ bi tollul woon nii nañu waxante dëgg man dama wax ne procès moral bu ci desee bakkan yi mënoon nañ bañ a dee nañ ko yóbbu ci télévision yi ñu njëkkee ko cest à bu ñu njëkkee woon projet bii def ko procès moral moral jaadu na jaaduwul nii la def deful nii ñu bañ ko yóbbu ci tali bi ba ay bakkan di ci dee buñ buñ ca yeggul woon rek dina xaw a tane tuuti parce que soxna si ñaari procès viol jaar na fi plus procès viol bii muy ñett mais amul coow li Kaliphone Sall bi nga tudd léegi jiiñ nañ ko fi viole Sitor Ndour jiiñ nañ ko viol noonu lañ ko jiiñee Ousmane Sonko mais li ci garaaw mooy ñaari viol yi kin ko jiiñ ci nguur gi la nekk benn viol bi moo nekk ci opposition mais ñaari viol yi certificat médical moo ko réglé ñu réglé ko mu jeex ndaw si dafa ne Californie daf ko siif ñu yóbbu certificat médical bi mu firndeel ni gisul ab ànd fii amu ci ñu écarté loolu prose ba jeex ñu ne ci leneen Sitor Ndour dañu ko tuumaal ne dafa violé ñu yóbbu certificat bi ñu ne certes dëgg mel ni na rapport am na ci liñ wax gisuma ko mais juge bi moom nee na loolu dalul xelam mu écarté loolu may ko acquitté mu dem même sos que bu Ousmane Sonko ñu jiiñ ko ne daa violé docteur bi ñëpp ko dégg démb mu ne moom gisu fi rapport amul ñu lànk ne dossier boobu foog mu jàll. mais docteur moom it communiqué boobu am na jaawaloo moom ak mhm. journaliste yi ndaxte it euh, démb ci àllarba bi génnee na communiqué di démentir journaliste yi nekkoon sur place nekkoon tribunal euh, wax ay kàddu yoo xam ne moom nee na waxu ko donc. certificat médicale bi ñaari problème da ciy am. muy bi nga xam ne dañ ko écarté ak aussi li ñuy wax tribunal mu indi coow entre moom. ak journaliste yi yéen waxal waxalu leen ma. waaw mais nag xam nga docteur bi moom bu dee dëgg rek la ñu wax viol pour man kenn moo ci am baat du juge du gendarme le médecin gis nga médecin bi moom mooy jeexal pro procès viole moo koy avancé ci njëlbéen gën la ñëpp yëgoon ne docteur bi nee na rapport moom amul loolu moom da ko bindoon mu leer léegi nag ñu ne dañ ne dañoo gis ay sperme ci kanamu ndaw si sperme la ñuy wër wala viole la ñuy wër c'est-à-dire foog ñu bàyyi xel ne procès bi du woon procès njaaloo procès viole lañ doon wër ñu naan ndax dañ ko buñ ko jëlee feneen def ko loolu kenn lijjantiwu ko ab viole la ñu doon wër docteur bi nee ne gisul ne rapport am na fii bind ko waaye nag nee nañ bi ñu defee xaw ma prélèvement lañ koy wax xaw ma yi fa tax dañuy ragal ne man yu laam du man yu loolu la weddi ne mosul wax ne man yu bon nee na journaliste yee ko wax mais moom waxu ko mais moom man viol ñaar laa ciy déglu diine scientifique yi diine li ma ca sant ñëpp ko xam mënuñu ko prouver scientifique bi li mu wax mooy li docteur bi wax comme nee na rapport sexuel amu fa booba lañu waroon a écarter dossier bi mu jeex mais ñu cay topp naan xaw ma am na ab kiiw man bu ñu gis fële est-ce que tëddul ak moom est-ce que daan ñu tëdd soxna si loolu beneen problème la loolu jotewul dara ak viol comme viol mooy crime lee du crime buñ toppatoo viol bi ba xam ne amul léegi nañu léegi nañu écarte viol bi ba pare ñu door a lijjanti leneen mais mënuñoo wax procès viol dem ba ca tribunal ba di fa lijjanti procès moral wala procès njaaloo kooku beneen àtte la am ñoo xam ne dëgg njaaloo du crime di on dañuy xaar yenn moo yi génn ndax it bu nekkoon par exemple ku sàcc wala koo xam ne euh, vol la wala leneen mun nañ xaar ne dafa këf sama saak dafa dafa dafa ma lamset wala du genre mais comme que viol la est-ce que it euh, li ñu fa wax ak kàddu yi ñu fa dégg même bu nekkee euh, kàddu yi ëmbuñ ko woon. mais mhm. it xaarandi nañ ko woon ci procès viol. kàddu yooyu day ñaaw gi mu ñaaw ndax dafay tax ñàkk kersa gi gën a law ci pénc mi soxna si. gis nga projet bii man dama yàgg a wax ni fii laa ko daan waxee ñu bëri dégg nañ ko ci man ma ne leen projet bii ëpp na ci ab chef de quartier di ko regle ndax yomb gi mu yomb rëy na ba jéggi dayo ñu yóbbul ko chef de quartier pour mu régler ko. rawatina gendarmerie tribunal yéeg wàcc ay moroomam ñoo fi jaar ñaari procès viol certificat médical réglé ko mu jeex lu tax bii loolu mënu ko réglé procès viol boo xam ne doo dégg ñu waxtaane certificat bu mukk yow say wax képp doy na ci loolu nañu waxante dëgg loolu leneen la gis nga mbir mi du mbiru Ousmane Sonko du mbiru Macky Sall mbiru ëllëgu Sénégal la mooy képp ku ñuy tuumaal viol nañu yóbbu ay firnde bañ a wu ci la mais benn soxna bu toog ne Babacar Sylla moom a violé sans nga war a tëdd kaso di xaar pour ñu àtte leen ci ay kàddu yu waxi kese mais loolu lu dangereux la ëllëg mooy ku nekk mën nga joxoñ kenn na moom a violé su ëllëgee ñu ne ah bon jurisprudence parce que bu njëkk am na bu fi jaaroon certificat médical bi xëy na leerul woon mais du tere demoon nañ ba tribunal pourquoi bii mënul dem tribunal loolu mooy saraxe nañ góor ñëpp dañ war a teg ay conditions yu sévère pour nit ki jiiñ nit ki viol na sévère charia mi xam deru gor charte yi mu teg ci njaaloo parce que kenn mënu ko prouver xam lan la ci jublu kenn du en nit rek yàq ko ci njaaloo charia danaan la diw mii boo ne woon njaaloo na te muy dëgg sax te indi wa yow la ñuy walbatiku ñu caaw la lool tax na doo gaaw a jéem nit ñi njaaloo mukk bu charia di dox mais viol nii ñu ko ubbee nii mu vàgg nga xam ne ku mu neex nga xëy ne diwa ma violé ñaari procès yi jàll kii waxoon ne kalifon moo ko viole biñ demee ñu xool ne amul. ndaw si kenn topp ko dañ ko bàyyi mu dem yoonam pour la mais waruñ ko woon bàyyi mu dem mais loolu mooy tax bu ëllëgee keneen jiñ ko keneen. nee na kal yi daf ko violé docteur bi xool ko ne rapport amul ñu ñu écarté viol bi teg ko ne le mais est ce que loolu dina ragal loo jigéen bu bëgg a jiñ viol ëllëg keneen. non ëllëg yow boo amoon sax xarit sax ngeen meroo nga ne violé na ma ñu xool ne noo amul après demal sa yoon non dañu war ko ci tuumaal nit te amul ñu albati sanction bi dóor la ko. su ëllëgee kenn du utiliser ay nit di leen defloo ay tuuma ay viol man nag yu mel nii boo gisee ma di ci teey ñun diine leen jàng bii li ci am dañoo jàng ci histoire ba tàyyi ay nit yu ñuy tuumaal njaaloo te dañuy utiliser jigéen ñu def leen ko loolu rek moo tax ñun ñu teey ci du leneen mooy gis nañ ne ay yonent utiliser nañu jigéen ñu tuumaal leen njaaloo yonent yàlla Moussa jigéen tax na ñëw taxaw nii ak ëmbam jiiñ ko ko nekk yaa ëmbal te du dëgg lan la ci jublu woon yàq ko ci digg penc mi parce que ñëpp gis nañ ne yonent yàlla Moussa ku baax la. mais ndaw si amul benn preuve bu mën a prouver loolu. yàlla moo seetal yonent yàlla Moussa soxna Aïcha jiiñ nañ ko lu mel noonu loolu après moo lay wan ne war nañu wutaat ay garde fu yoo xam ne yu mel nii dootul gaaw a amati sinon danañ fi mës jiiñ kilifa loo xam ne. deram fa lay doxee di yàqu ba abada man daal li ma d'accord ca njëlbeen ga la ñu waroon indi ay preuve yu firndeel ne lii am na mais ñaari atu yàlla ba ñetti atu yàlla ba léegi ci ay verbal la ñu nekk lii am na lii amul pour man wax dëgg yàlla Sénégal ëpp na lii te projet bi lim ñu coûté lim ñu yàqal ci ay milliards lim ñu faatal ci ay bakkan dama ne viol bi même su amoon lii jaru ko nañ waxante dëgg parce que ay procès viol jaar nañ fi te nii lii pour mën nañ ko arrêter mu jeex ñu ne ci leneen. réew mi ëpp na lii vraiment. d' accord mu lay mhm. citer aussi exemple yeneentu yàlla Youssouf ba mhm. xale ba moo ko gis euh, ci reen bi bi mu ne da koy sàkku ba xale ba wax ba mu doon miracle loolu lépp sont des exemples mais euh, loolu bi mu jàllee mhm. euh, procès bi mais aussi procès bi bi mu jàllee ki nga xam ne muy usmaan Sonko génn na wax na ay kaatu ba dénigré Adji Sarr dangin Adji Sarr moom tamit génn na ba tey yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci Ousmane Sonko tey ànd sàmm jikko yi ci ñaari parti yi lan moo ciy taxawaayam ndaxte it bu ñu ko commencé kii wax fii kii wax fii te it après du yem ci wax lan ngeen mën a poser comme acte wala lan ngeen di proposer ngir yenn conséquences yi bu naree am ñu mën koo limiter. ah rafetlu ma kàddu yooyu de wax dëgg yàlla su ma sañoon projet bi dafay yem mu jeex kii nga xam ne tamit wax dëgg yàlla moom mooy euh, Ousmane Sonko lancé bi mu nekkoon. na ci continé mooy lan moom ab politicien la adversaire politique am mooy président Macky sal na wax ak moom su ko defee mu teg ne Adji Sarr Adji Sarr tamit continuer ca lancé ba mu nekkoon su fekkee gis ne ne victime la mu topp ci wàllu yoot mu jeex mais paaka kenn ku nekk demaat ca mbedd ma la xewoon ca tribunal ñu war ko tuuraat fii ci mbedd mi nit ñi di ko déglu loolu amulu ñu benn intérêt te man jàpp naa ne euh, ñi nga xam ne ñoo war Ousmane Sonko jàpp naa ne dinañ ko xelal loolu que même bu fekkee tarxiisu làmmiñ la def ba di ko ci tudd moom loolu baaxul sax ci communication am moom benn adversaire la am politicien la na xam ne politicien la na mu teg dossier bi nee mu ne ci leneen fàtte ko pour nit ñi fàtte ko ne ci leneen su ko defee soxna si mën a defi leneen moom it mais bu ñu bëggee débalance après ñu indi yenn kàddu yi ci pénc mi te kàddu ya duñ ko wodd du rafet loolu moom wax dëgg yàlla nan ñu ti dimbali parce que dafay yàq ndaw ñi war a ñëw ëllëg am na kàddu yoo xam ne bu ko ndaw ñi di dégg ba miin ko dañ koy fowee te am na yenn kàddu yu vulgaire yi ma dégg na moom la ñu wax ci tribunal ba loolu moom yàlla bu ko kenn nettali ci mbedd ba ndaw ñi di ko dégg ba mu banaal ba ëllëgee ku nekk di ko yëkkati réew mi réewu sutura la réewu kersa la réewu ngor la dafa am yoo xam ne ñun xajul ci ñun waaw vraiment yooyu moom war na jeex. avant dernière question ci Sonko combat bi mu ne Dakar lay am te mhm. ndaw yi nga xam ne euh, gëm nañ projet bi. Mhm. gëm nañ aussi que euh, combat bi ñoo ko war a gagné mu ngi mhm. leen jox rendez-vous Dakar est-ce que duñ ut solution que ñu nekk ci komba waaw man nag gis naa ne loolu bi mu toqee ci nopp kilifa yi war nañ cee jóg taxaw bañ a seetaan combat di am parce que politicien moom xamul lu dul projet politique am mais nitu diine yi am nañ ci part de responsabilité bu mag boo xam ne bu kenn wax ne sama yoon nekku ci ñi mën a gis président nañ ko gis ñi mën a gis Ousmane Sonko ñu gis ko maanaam euh, ñaari machine à tàkk kii nga xam ne mooy président de la république machine judiciaire bii mu taal ne foog mu liquider ko non foog mu arrêté ko Ousmane Sonko tamit discours guerre bii muy monté foog mu arrêté ko c'est-à-dire pour man kilifa yi ci ñaar yooyu la ñu war a dox mooy yéen comme yëg ne ne dafa bëgg ne da ngeen ko bëgg a liquider ba du mën a bokk mais machine boobu arrêté leen ko mais yow tamit sa discours guerre bi na arrêté ñaar yii bu arrêté woon réew mi ne dégg dal waaye nag boo nekkoo ko arrêté si discours guerre bi ba pare machine bi continuer di ko liquider mooy bëy boo ko bëggee rendi foog muy jël di yuuxu ku ne xam ne ne état kenn mënul xeex ak moom mais am na koo xam ne même boo ko doon teg paaka bi di rendi ba mu jeexeet day yuuxu ba baa muy dee loolu la mais discours wax ne damay combat damay xeex damay résister loolu ku def tuuti science politique ku deful politique nag yow day rëy ci yow mais boo xamee science politique discours yooyu du dara ci politicien politiciens yëpp dañuy def ay yu mel noonu loolu Abdoulaye Wade ko def président da ko daan def mais voilà mais discours yooyu discours politique la ci mbedd mi lañ koy waxtaanee ko du dara léegi nag koo xam ne miinoo yooyu yow boo déggee discours yooyu day rëy ci ñoom politiciens yi xam nañ ne loolu discours politique loolu kenn du ko régler ci justice dañ koy régler politiquement mooy ay kilifa nañ ci dox ñu bañ seetaan parce que ay du yem ci bopp borom wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan alquran nee na wattu leen fitna su ñu gisee ñu koy wax nii ñu xaw ko oyofal ne yoonu kenn nekku ci mais bu tàkkee ñi ci seen doom di dee seen yoon nekku ci lan moo tax ñu deele bis yu ñu taal Auchan yi ñu taal total yi ñu taal xale yi nu faat seen i bakkan <laughs> mais ñooñu bokk ñu ci woon lan moo leen ci dugal fitnaa dul yem ci bopp borom moo tax man gëw ma na ñëpp a war a seetaan loolu warul nekk war na am ay délégation yu jóg président maye audience mu bañ a maye audience fokk ñu gis ko parce que moom it na xam ne moo yilif askan wi de. lii nii amal na ko yitte de. non foog mu wax ci waaw dialogue bi moom beneen forme la. Mhm. jàpp mu ne lii nii mënees na koo régler ca dialogue ba. parce que dialogue bi jàpp nañ date bi ba pare. terme de référence yi ba tey man dégguma ko xaw ma luy terme de référence mais dialogue nag mënoo ko annoncé nit ne ko kaay ñu dialogue te amul ay terme de référence. terme de référence yi balaa ngay jàpp date bi waroon wax ne terme de référence leen ko ñoom bu dee am xalaat ñu ne waa dëgg la terme de référence yi na waaye boo mënoon yokk loolu mooy nawloo nit maanaam maag yow bu ma bëggee ko ma jox la point yi waaw lii de baax na mais man su ma sañoon ci waxtaan wi ñu yokk ci lii ak lii nga xoolaat ne waa d'accord amul problème ñu koloosaat ko dugalaat ko ci document bi mat ñu delloo mais man maay toog fee ne la ci nangam ak nangam la ñuy waxtaan kaay ñu waxtaan. bu dee yow yi nga cité bokkul ak man lii sama problème mais suñu waxtaan wi du am chance moo tax ñoom foog ñu nawlonte ñu xam ne réew mi dañ ko bokk te mënuñ ko séddoo. ala kulli xaal ayante rek fi am. léegi nag yooyu tamit man damay ñaan président mu wàcc si boppam moom bu mu wanee ne dialogue bi soxlawu ci dara. non soxla na ko parce que ñiy faatu ci réew mi njabootam lañu moom mooy la per de la nation loolu la yàlla def ku nangu ak ku bañ mooy sa président de la république moo njaboot njaboote ñëpp ku ànd ak moom ak ku àndul ak moom bu ci nam nekk njabootam ka da nga am sa sa doom ci sa kër sax mais doom ji contraire ak yow mais du tere sa doom la loo ko war a defal defal ko ko rek su ko defee moom na xoolee Sénégal yi bët boobu na jàpp ne man ci biir. njaboot gi am naa ci ñu ànd ak man am naa ñu àndul ak man mais du tere damay boole uuf ñëpp ndax ndey ji seex njaaxaanaay lay tëddee. ala xaal. am na solo avant dernière question balaa ngay joxe sa actualité. ànd sàmm jikko yi dégguñ leen ci communiqué ci réseaux sociaux yi ndaxte it amoon na arrestation. ci ñenn ñi nga xam ne ay influenceur wala TikTok ci phénomène bi ñu jël ci xalifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër diine yi ñu leen di saaga dégguñ ci communiqué ànd sàmm jikko yi. waaw man de léegi-léeg danaa koy dégg ñu ne réseaux sociaux yi foog ñuy wax kilifa diine yi nii saaga jaaduwul nangam nangam ci réseau yi mais man gisin bi ma ci am Ann Samm Jikko Yi dëgg la Ann Samm Jikko Yi ku ko xam-xam ne moom xeexam dëgg mooy ñu protéger kilifa diine yi parce que ñun kilifa diine yi ñooy suñuy laytaay ñun fu ñu jógee ci ñoom leen jëm ku ñu bëgg a jot laal leen ñu dal sa kaw mais ñun xam nga lu ñu gëm su fekkee loolu ñuy wax dëgg la am na ñu nekk ci réseau yi di saaga kilifa diine yi bu dee dëggale ci ñoom te wér na ne ci ñi ne ci nguur gi loolu neexu leen dëggale ci ñoom waaw ñi nu arrêté ñu def ay commentaire Facebook ñu arrêté leen xam nga ñaata la ñoo ñoo bare lan moo tax ñooñu di saaga kilifa yi lu tax nguur gi jàpp leen xanaa toog rek naan sëriñ si waaw ñu ngi leen di saaga ci réseau yi wax leen na xale yi dañoo yabaate te yow ku commentaire saaga président nga tëj ko ci kaso bi mais ku saaga kilifa diine ñu ne ah wax leen ak ñoom ah ñu ngi saaga kilifa yéen du ngeen ci wax loolu mooy lan cest à loolu du lu xel nangu loolu manipulation la man xàmmeewu mu ku mën a toog ci Facebook di saaga sëriñ ñu naan waaw ñi ngi saaga sëriñ si dañoo réew nga commentaire saaga président ñu dugal la kaso lan mooy différence boobu réew mi dafa am état kenn du fajal sa bopp ku commentaire saaga sëriñ nañ la jàpp dugal ci kaso bi comme ku commentaire wax sa kilifa réew ñu dugal la loolu moo koy réglé di ko régler seen boobu xam ah naan la ah daa gis ngeen ñu gis ak seen sëriñ ci réseaux sociaux ko dóor mais loolu mais loolu état de droit bu moo tax yooyu buñ fa poussé nit ñi ñun état la ñu am samp nañu ay règle ak i loi ku def lu jaaduwul ci réseau yi procureur mi ngi dégg bu ñu boole kenn ak benn kilifa diine nañu topp trace yi ñu xam ñi saaga ñu régler leen mu jeex fii liñ fi jàpp ci ay nit yu commentaire réseaux xam nga nu tool toll mais mosoo ji gis ku ci saaga kilifa diine ñu jàpp ko loolu pour lan la moo tax pour man yooyu ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci diine du yëngu mënul ñu ci manipuler ànd sàmm jikko koy nag yàlla moo def moom yooyu da cee yeewu parce que dafa ne ci réseau bi xam na ni mu demee mënoo ko manipuler ba mu dugg ci benn affaire rek aveuglement waaw ñu ngi saaga sëriñ si ah ñu ngi koy naqarlu am nañu lu ko mën a faj nañ ko faj parce que ñiy jàpp ñiy commentaire Facebook gis nañu ñiy ñiy saaga sëriñ si dafa mel ni da leen neex parce que freiné wuñu leen waaw loolu moo tax ñun yooyu ñaara duñ ci sori dañuy toog ba déggal ko suñu bopp képp koo xam ne gis nañ ñun nga attaqué suñu sëriñ directement ñun loolu duñ xaar procureur na nga ko defee lañ la koy delloo waat booba nag bu bu ñu nekk ko ci état bu responsable moom mooy xam ni kii li muy def nii danger public la parce que kilifa gu junni nit topp nga toog ci sa compte saaga ko man du ma xaar ñu fajal ko seen bopp may ñëw fajal la ko ndax li nga indi mën na indi désordre information jërëjëf euh, waa Sénégo madame Mané ñu ngi leen di jaajëfal bu baax xëy na li liñ ciy wax rek mooy li am solo mooy ànd sàmm jikko yi fa mu nekkoon ba léegi ma nga fa. loi bi ñu mujjee dugal dañ ko rejeté waat maanaam bureau assemblée dafa boole ko loi bi ne du ko yóbbu plénière te ci forcing la ko def forcing bi mooy lan bureau bi presque léegi dafa xaw a égal mais tic-tac bi ñu def mooy dañu ne ñaari euh, président groupe parlementaire yi am na bu nekk Yewwi am na bu nekk Wallu am na bu nekk Benno déjà kon opposition bi am na ñaari président groupe parlementaire nguur gi am na benn ñu ne président groupe parlementaire yi du ñu voté cest kon éliminer nañ ñële ñaari élément daal di éliminer ñii benn moo tax ñee ëppale benn léegi nag moo tax ñu boole ko ko ci bureau bi mais président groupe parlementaires yi dañu waroon a voter mais pour ñoom ñu forcing ba xam ne lii mën nañ ko bloquer ñoom ñu ne président yi duñu bokk léegi boo ne président yi duñu bokk rek deux éléments ci opposition bi ngay dindi te ñoom benn lañ leen di dindi su nga defee ñu xaw leen a gagné ñu bloqué waat ko te loolu juridiquement du yoon daaw bi ñu ko defee ñu yóbbu leen fële cour suprême pour ñu cacher dogal bi mu ne moom dafa incompétent ci loolu mënu ci wax ah kay mën na ci wax am na sañ bi parce que loi yi wax nañ ko. bi mu paree dem nañu ci kilifa yi barki dem la ñu jógee Tivaouane ko Babacar Mboup a toujours mi ngi wër mi ngi dem Touba mi ngi dem ci kilifa yëpp Ndiassane jaar nañ fa cene ba kadaalika ñu yëgal leen ne loi ba ngeen ñu santoon ñu yóbbu ko yóbbu waat nañ ko waa assemblée bloqué waat nañ ko neuf députés yi nekk Benno bloqué nañ ko sept yi nekk ci opposition bi yëpp a ko validé léegi nag yëgalaat nañ ko kilifa yi ne leen li ngeen sàkk woon pour ñu def ko bloqué waat nañ ko encore loolu dafa war a tiital ñëpp madame Mané xalif général des Tidiane xalif général des Mourides bu Ceneba bu Njaasaan bu Ñaseen bu Laayeen ñëpp àndandoo signé ne dañu soxla loi buy criminaliser ngóor jigéen ñu yëkkati ko yóbbul ko député yi député majorité euh, présidentielle bi bloqué ko ne du jàll avec ça ñu nu ñu fonk nañ kàddu kilifa diine yi soxna si man loolu sama xel mënu ko nangu signature u Serigne Babacar Sy Mansour bu mun Mountakha ak mbooleem xalif yëpp ne ci ñu indi la ko ne ñii ñoo soxla ñu sàkk loi bi yow nga bloqué loi boobu ànd ak lii nga ne fonk nga ñii man loolu mënu ko comprendre man d'accord naa ay nit yu politique di ko def leneen mais yi lu ñu àddu soo leen fonkee boo ko narul woon sax yow nga rus leen nga weg leen nga nangul leen ko nga bàyyi loi bi mu jàll mais malheureusement demeewul noonu deux fois yoo xam ne bu ci nekk signature u xalifa yéeg yëpp la ñuy boole boole sànni ca àll ba mooy ñii seen kàddu pesé wul laafu yoo ci ñoom loolu man rafetlu ma ko su ko defee loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal yéen tamit ci temps bi ngeen ñu may pour ñu waxtaane ko masagu leen coono bi ngeen daj comme ni ko waxee sànq pour ñëw ba fii yàlla na leen ko yàlla defal tiyaaba yàlla yokk ko seen wërsëg yokk ko ci seen fan incha allah di nuyu Abiba bu baax nag nga xam ne mooy sababu suñu daje fii tey